surveillance, que Voici la chaîne qui décortique les réalités de la tariqa Tijani, notre point de relais avec le Assalamu alaikum à toute l'assistance ici présente à Medina Cheikh Tidjani. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Prière à son prophète Seydi Ahmed, paix et salut sur lui. Nos sincères ziyaras au pôle secoureur Seydina Cheikh Ahmed Tijani Chérif. Allégeance renouvelée infiniment et de façon ininterrompue à l'imam des bien guidés seydi mohammed el cheikh xutbul aktaabul kabir al imam al mahdil muntazar une fois de plus l'occasion nous est offerte de célébrer ce jour particulier et cette nuit particulière, ce jour si particulier où les créatures, toutes espèces confondues, prosterneront à l'unisson pour dire marhaban à la venue au monde du missionnaire de la fin des temps, Seydi Mohamed El Cheikh Imam Al Mahdi Muntazar. En ce veille du 10 avril 2022, la cérémonie est dédiée aux femmes, des femmes dévouées à la cause qui vont nous cerner les contours du rôle de la femme dans la mission universelle de la fin des temps. Un débat riche, un débat plein d'enseignements à travers des questions et réponses et cerise sur le gâteau. Les prestations des artistes aux voix d'or vont nous accompagner à l'initiale comme à l'étape finale. comme asalaamaaleykum ni ñu leen ko waxee tey jii ñu ngi fi daje gannaaw ba ñu santee suñu boroom julli ci yonent bi delluwaat di sukk ci suñu kanamu ki ñu amul kudul moom di Seydina Cheikh Ahmada Tidiane Chérif waaye itam ci ki nga xam ne moo ñu indi ci jataay bi di sang bu tedd bi di xutbul aktaabul kabir di imaamal mahdil muntasar muy bésam bu ñuy waajal nga xam ne créature bu yàlla mën a bind jàpp nañu ne tey jii noppi nañu ngir daal di sukk sargal ko ngir gane si àdduna jëmm ju tedd googu tey jii nag ñu jagleel ko jigéen yi jigéen yooyu ñu ngi nii toog ñu duppee leen yi nga xam ne daanaka mosuñu des ginnaaw tey jii nag rôlu jigéen ci biir société itam ci biir mission Imam Al Mahdi moom la ñu fas yéenee waxtaane dinañ ci ànd nag ak prestation yu wuute yu ñu groupe yi di def laata boobu programme bi lañu ñu Mouhamed Seydi décliné buñ ca noppee ñu dem nag ci prestation bu njëkk bi ak Maodo juuf soxna Rama Gise soog a ñëw nag ci question yi ñu daal di koy door asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu Mouhamed Seydi vous suñu mbokk yi tedd ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara te di leen wax marhaban fi madinatu cheikh donc suñu programme mu tey bi gannaaw bi euh, Cheikh Adama nuyoowee ak yéen euh, fàttali li ñu fi tax ñëw tey te muy màggal euh, anniversaire juddu suñu sang bu tedd bi naka suba ñu jël guddi tey bi daal di koy déjee jigéen ñi kon tey table ronde bi ñuy amal waxtaan wi ñuy amal ñi ngi koy amal ci thème bi taxawaayu jigéen war a am ci biir mission universelle bu imaam al mahdil muntazar donc ñu am ci ay invité te ku ci nekk ci ñoom ñu fas yéene la posé ay question ci naka nga jàngate mbir moomu ak lan moo ci war a nekk say tegtal ci taxawaayu jigéen waaye tamit ñu am ay prestations de différent groupes donc am na ñetti prestations yu ñu war a def lépp ñu nar ko tënk rek ci diggante une heure ba une heure quinze minutes de programme mooy daal fii ak minuit et quart bëgg nañ bu ko defee lépp jeex donc ma waxaat ko ci tubaab nous souhaitons la bienvenue dans la cité religieuse de Medina Cheikh Tijani à tous les pèlerins pour cette occasion euh, qui nous est donnée de fêter encore une fois l'anniversaire de Maulaya Seydi Mohamed El Cheikh, notre vénéré guide, et l'imam Al-Mahdi Al-Muntazar. Donc notre programme de ce soir va se dérouler sur une heure à 1h15 minutes, avec au programme euh, différents invités qui interviendront sur le thème du rôle de la femme dans la mission universelle de l'imam Al-Mahdi Al-Muntazar. Nous allons vous présenter nos invités autour de cette table ronde. nous avons euh, sur ma droite Sorna Astou, Diop de la Daïratul Iman de Rufisque. Nous avons Sorna Mariem Sal Diagne, la Daïratul Iman de Dakar. La soirée d'aujourd'hui donc sera animée principalement par euh, Sorna Rama Gissé Diagne. Euh, en tant qu'invité, nous avons euh, Sornanday Antassar, mais également Sorna Saoudiatou, donc, euh, euh, et notre dernier invité, salimatu euh, qui va nous rejoindre, Salimatou Sabali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Euh, ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar itam bu baax di si sang bu tedd bi yaa Mawlaya Seydi Mouhamed El Cheikh et donc euh, sans tarder dañuy ñëw rek passer aux questions Euh, donc si thème bi nga xam ne ne tey jii moom la ñu war a waxtaanee ak sunu invité yi donc ñu leen di dalal euh, ak jàmm si plateau bi euh, donc on va parler aujourd'hui de la femme en général et de la euh, du rôle de la femme dans la mission de l'imam Mahdi Al-Muntazar et donc on va commencer par euh, Sokhna Marième et donc Sokhna Marième Sall Madame Diagne dañoo gis benn constat léegi danoo gis jigéen yi ci réseaux sociaux yi si internet yi en fait dafa mel ni li nga xam ne ni mooy wàllum pudeur dañ ko jël rek teg de côté donc lépp ngay gis ci réseaux sociaux yi léegi avec les femmes euh, te aussi mu nekk loo xam ne ni quand lu doy waar la euh, ñu bëggoon leen laaj rek ban euh, interprétation walla ban gis-gis ngeen am si loolu maanaam parlez-nous soxna Mariam un peu de la sacralité de la femme face aux nouvelles technologies. Bismillah rahman rahim. Louange à Allah, que la paix et le salut soient euh, sur notre euh, maître Seyd Ahmed sallallahu alayhi wa sallam, l'être si parfait, la meilleure créature, le sceau de l'humanité. Louange au pôle caché, le détenteur des secrets les plus profonds, le pôle secoureur, Mawlaye Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, Chériful Akbar Kabir, radiallahu ta'ala anhu. Gloire et pureté éternelle à notre guide, Mawlaye Seydi Mohamed El Cheikh, le missionnaire tant attendu de la fin des temps. Pour en revenir à votre question, Sokhna Rama, euh, concernant la dépravation des mœurs, les femmes qui ne connaissent pas leur véritable rôle, qui est si important qu'elles ont dans la société. Si on vient à la base des réseaux sociaux qui ont été créés pour faciliter la communication entre les parents, les amis, euh, qui ont en même, c'est-à-dire qui peuvent partager euh, sur un sujet, sur un même centre, qui ont le même centre d'intérêt. partager des informations, donner son point de vue. Pour faire une activité commerciale ou à but euh, publicitaire, vendre des produits, avoir un marché beaucoup plus grand. C'est pour ça que les réseaux sociaux ont été créés. Donc c'est si important ces réseaux sociaux. Prenons l'exemple de Medina Cher, euh, Diaspora, ou sur les pages officielles de Moula et de Mohamed El Cher qui permettent de, form de former et de diffuser ces enseignements. Combien de disciples l'ont connu et ont adhéré à sa cause En ce qui concerne les inconvénients, ils sont nombreux. On peut souvent les utiliser pour nuire à travers des vidéos, des photos, des images obscènes qui sont diffusées et sont vues aux yeux de tout le monde, partagées par un public énorme partout dans le monde et le buzz est créé. Et ce qui est encore plus grave, c'est que les diffuseurs sont payés maintenant en fonction du nombre de vues, du nombre d'abonnés. Et ce que c'est que ces buzz sont de plus en plus nombreux euh, et qui sont dépourvus de toute moralité. Donc on voit toutes sortes d'informations dans les réseaux sociaux. Les gens sont en train d'étaler leur vie avec des photos de leur maison, ils sont en train d'étaler leurs biens, leurs richesses et ce qui met en danger leur famille et leur entourage. Certains l'utilisent pour ternir, pour ternir l'image des gens, des autorités religieuses et publiques, l'image de la femme qui s'exhibe et qui est contraire aux valeurs de l'islam enseignées par le prophète Sayyid Ahmed sallallahu alayhi wa sallam. Parlons aussi des enfants et de l'utilisation qu'ils en font. Les parents qui avaient trouvé des gardiens pour sécuriser leur maison, des fenêtres, des portes, maintenant ils sont la merci, euh, exposé via les réseaux sociaux, parce que presque tous les parents donnent un téléphone portable à leurs enfants. Mais est-ce que c'est surveillé? Personne ne sait ce qu'ils font de ces réseaux sociaux-là. Et ils sont ouverts au monde. Et c'est pas comme, et ils font des choses qui sont pas commodes et qui sont interdites par nos valeurs religieuses. Ce que nous conseillons, conseillons à nos chers euh, amis et parents, c'est d'utiliser ces réseaux sociaux intelligemment. Protégeons nos enfants et notre famille. Les parents doivent sensibiliser, parler à leurs enfants pour les informer des dangers des réseaux sociaux. Les parents doivent les utiliser pour surveiller les, leurs enfants et de l'utilisation qu'ils en font pour réduire les, risques d'une mauvaise euh, utilisation. Donc, ce que nous pouvons conseiller, c'est juste de faire attention, que ça peut, ce qu'on dit, tous les moyens sont bons pour euh, pour diffuser une information, mais tout le temps vérifier la source. Est-ce que c'est vrai? Donc, euh, il y a une utilisation un peu intelligente qu'on doit faire des réseaux sociaux. Je vous remercie. Euh, donc, euh, merci beaucoup, Sorna Mariam, pour ces combien utiles. Et euh, quel conseil donneriez-vous à une femme qui souhaite être vertueuse maanaam ban conseil ngeen di jox jigéen boo xam ne ni moom dafa bëgg vertueuse. Euh, merci Sokhna pour cette question donc euh, euh, pour une femme qui souhaite être vertueuse il va d'abord qu'elle euh, ait un comportement d'abord vis-à-vis qu'elle soit un exemple qu'elle puisse au moins avoir, euh, c'est-à-dire voir sa relation avec le créateur, créateur d'abord, savoir ses devoirs et ses obligations vis-à-vis de la religion d'abord. Ensuite, elle doit savoir gérer son foyer. Euh, il euh, y a des qualités qu'on attend d'une femme, c'est qu'elle soit au moins, euh, qu'elle fasse de son, de foyer un lieu paisible, où il fait bon vivre. Donc, euh, Il y a le respect envers son mari, parce qu'elle doit savoir les devoirs vis-à-vis -vis de son mari, et c'est vraiment réglé dans le Coran. Donc, euh, elle doit être une confidente. Euh, elle a un rôle de mère à jouer aussi vis-à-vis -vis de ses enfants. Donc, euh, elle doit veiller à la transmission des valeurs islamiques à son enfant, donc l'éduquer pour avoir une bonne éducation, avoir de bons comportements. Et dans la société aussi, elle a un rôle à jouer dans la société. parce qu'elle doit fournir à la société des, des, enfants qui pratiquent bien leur religion et qui puissent euh, euh, défendre les valeurs de l'islam. Donc la femme vertueuse doit aussi s'armer de beaucoup de qualités, c'est-à-dire euh, elle doit avoir le courage d'endurance et accomplir de très bonnes œuvres et vivre en communauté. Donc elle doit véhiculer la bonne parole. Elle doit avoir beaucoup Euh, de courage, elle doit avoir de la détermination, de la volonté. Car le chemin des, des vertueux, euh, les chemins des vertueux sont parchemins d'embûches, surtout en cette période de la fin des temps. Donc euh, la femme vertueuse doit être, doit avoir beaucoup de qualités d'ailleurs. Ensuite, elle doit savoir bien gérer euh, d'abord sa relation avec Allah, ensuite elle doit gérer, c'est-à-dire euh, comme c'est dit dans le Coran, elle doit euh, respecter les préceptes de l'islam, euh, elle doit gérer, bien son foyer, ensuite sa famille et, être, et pouvoir vivre paisiblement en communauté. Euh, ah oui, oui. <laughs> merci beaucoup, Sokhna Mariem. Euh, merci pour ces conseils et tout et donc ñu koy rappeler rek ku nekk am na maximum cinq minutes pour mën a répondre ci questions yi nga xam ne ni ñu ngi ko koy poser et donc euh, on va donner la parole à monsieur Sey pour continuer toujours euh, sur cette logique. merci beaucoup Sokhna Rama merci beaucoup Sokhna Mariem pour ces réponses donc. Euh, ñuy fàttali rek ni ñi ngi ci thème bi taxawaayu jigéen ci biir mission universelle Imam Mahdi euh, ñuy ñëw ci suñu prochaine invité euh, Soxna astu euh, Soxna Astou dañuy dégg nit ñi di faral di wax ni palaasu jigéen gi ci waañ bala yam bëgg ko tënk ci toppatoo kër gi bëgg ko tënk ci toppatoo njaboot gi yéen est-ce que yaakaar ngeen ni loolu ñi ñi xalaat lool fa la rolu jigéen yam walla lan ngeen mën a indi ci eh, jàngat ci kàddu googu ñuy faral di dégg ci suñu société asalaamaaleykum waa axiru zaman ak ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi ziyaare ñëpp wante ñuy si jiital saaxibul medinatu nuur imaamul mahdi yu almuntazar juddu suur bi ñu suuraale woon teggin tax mu jur wa dumta amiral xaq mi ne fax ci fay nuuri tijaaniya kabasaloo doomi soxna yi nanguwul ndogalu yàlla wante jombal jombal yi daan dunde ëttu Mawlaana Cheikh Ahmada Tijaani moo tax lu jigéen dina moo rek macha allah ñu ngi koy xool ci njaboot gi mu jur kon Mame Binta Fall mi jur Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh ñu ngi koy ndokkale aussi wante ñu ngi ndokkale bépp jigéen bu ñëw rek ruuxam baax rek mu topp ki nga xamante ne nii ku ko topp mucc ki nga xam ne ku ko topp xam lu baax wante ki nga xam ne ku ko topp bu ëllëgee doo sëgg ci sa kanamu boroom macha allah. ah yaa Seydi may ñëw ci question bi nga ma posé maa ngi jéggalu nag ndax yaa woo naar ci guuxum soow comme faw mu ngi dégg furuk furuk léegi li ma mën a wax rek mooy dañoo tollootul jamono boo xamante ne jigéen war na mën a bàyyi boppam ñu koy tënk ci kër ndax bu fekkoon jamono dafa neex ba sa borom kër mën lépp bu boobaa sa mooy nga toog ci biir kër gi parce que loolu la la diine sant mais munoo sa borom kër loxoom jotul ginnaaw nga war a mën a takku nag jàppale ko ba sutura si ngeen di dundee bañ a sàweeku ci biir ci biti nga toog mais boo toogee njaboot xiif nga toog góor munul mais est-ce que dina tax famille bi dem est-ce que dina tax say doom seen xel dal lii dalal xel lii dalal xelu njaboot. mu ngi ci mu lekk ba suur mu ngi ci mu naan ba màndi wante mu ngi suñu teg ko ci yoonu dëgg macha allah li ma si mën a dolli rek mooy góor bi nga xamante ne mooy tënk mooy tënk soxnaam ci biir këram te loxoom jotul ginnaawam mu ngi lor njabootam wante mu ngi lor soxnaam parce que li góor mën a liggéey ba suturaal njaboot kazaalika jigéen mën na ko ndax xam nga lu tax jigéen dundam yépp sutura la war a doon ndax bi muy ñëw ci biir kër bàyyi dañu ko muur kon sag boobu waru koo sàggi macha allahu li ma ciy dolliwaat mooy lan moo tax jigéen war te mën a dem liggéey jàppale borom këram ndax doom yi ñoo ko bokk sukk jur doom bu soloo ba rafet bu génnee xelu baayam dal xelu ndeyam dal mais loolu ñàkku ndeyam ak baayam mooy rot mu mën ko ci jënd wala rek ndey ak bàyyi def leneen te leneen bu yàggee mën na jur loo xamante ne ni mën a tax njaboot gi yoon bi mu war a aw du fa aw kon jigéen fépp fu góor taxaw war fa mën a def jigéen war na ko mën a def parce que nag jigéen ñi yàlla may na leen xel jigéen ñi jàng nañu jigéen ñan ci bureau yi wante jigéen ñi ñoo jur wàll yi jigéen ñi ñoo jur ñi nga xamante ni ñu ngi sukk seeni oom di ñaan tarbiya ba tax nga mën a tegu ci yoonu yàlla kon nag jigéen dafa yàgg doon missionaire parce que xam nga lu tax yow mënoo jur doom ne ndeyam ci biir këram lekkul naanul sa jabar du bouger mais léegi yow boo toogee wéet est-ce que doo jigéen bi waroon na la mën a suturaal ba seen sag du sàggeeku parce que yaay mën na muñ baay mën na muñ mais xale mënta muñ xiif te xale bu xiifee xolu yaayam du sedd xolu baayam du sedd kon sutura si mooy na ndey dem wuti bàyyi dem wuti ñu boole indi ci biir kër gi muy sag muy sutura foofu rek laa mën a yem ndax man soxna su bi may ndaw ba tey damay liggéey te incha allahu tànk yàlla mu may may wér damay liggéey ba dugg biir bàmmeel parce que sama njaboot laay liggéeyal salaamaaleykum wa rahmatullah. macha allah soxna Astou jërëjëf ci réponse boobu xanaa rek kon ñu bëggoon euh, laaj ci cadre mission imaamal mahdi yow nga ni taxawaayu jigéen daal gis nga ni dafa war a takk ndiggam. jàppale borom këram liggéey indi ci kër gi ndax njaboot gi mën a dund ci sutura mën a naat waaye jigéen naka la mën a boolee di liggéey bëgg boole yar bëgg boole ak diineem te lépp ñu nekk ci axiru zaman mu bëgg daw moom bëgg am taxawaay yëpp naka la jigéen mënee boole loolu yëpp taxaw ci. macha allah say xam nga jigéen yàlla dafa def ci moom mu am xel. yàlla dafa def ci moom mu mën a dalal góor su nekkee ci fitna kon jigéen ndonoom mission ci la bokk tey boo xoolee macha allahu mam fa wàdde wele mi jur malik mi taal jàkk yi ci réew mi moo ne Malick jigéen a ko jur wante jigéen ju taxawu woon pour jàppale boroom këram ci daara ji ba tax keroog macha allahu dundam yépp da doon fóotal doomi daara yi bëggul woon dara parce que yàlla la doon wër di wut ngërëmu yàlla pour man bépp jigéen tam buy dundee aaxiru zamaan li nga mën rek parce que dañ toll si jamono bu metti li nga mën mooy nga sàkku sa ngërëmu borom kër wante nga sàkku aussi ngërëmu yàlla parce que liggéey tam jaamu yàlla la yow naka nga mën a toogee rek macha allah war a participer si kër parce que bu la góor libéré ne la demal liggéey yow yaa yow bul xaar ñu ne la defal ci kër. parce que góor bi la libeere suturaam mu ngi si yow yow lu góor di def ci kër war nga ko mën a def parce que sutura yàlla yaatu na mais góor day dunde ñaxam man dama gëm ne góor dafa war dunde ñaxam parce que ka ngay dem di ko sibooru mbaa ngay yaakaar ci moom pourtant mbindeef la comme yow wér na comme yow am na xelu comme yow kon lu tax nga bëgg a jël sa dund di tàllal loxo di tuutal sa bopp dignité ci jigéen personnalité ci jigéen loolu la doom di gis ci ndeyam gis ko ci baayam ba bu ëllëgee fépp fu muy teg tànkam daf koy xam nga xool jigéen ji nga xamante ni nii da doon wër yàlla macha allah laf teg nga xool jigéen ji nga xam ne da doon wër yàlla

waaw macha allah ñu ah ñuy dalal saaxibul Medinatu nur ñuy dalal miftaaxul xadratu ilaahiya wante ñuy dalal xalifa Cheikhu Tidiane bi toll ci diggu ndawam ñu waajale ko basaatul jalaal jox ko wàcc waay bay Medina Cheikh Tidiane macha allah miftaaxul xadratu ilaahiya ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziyaar ñu ngi lay wax dalal ak jàmm borom jamono ak lu dul jamono jabbaaratu tarixati samsi ilaayatu kubra borom barzakul maxtu muy xëy ba asalaamaaleykum wa

danga leen honoré jigéen yi nee nañu bég nañu jigéen yi nee nañu kontaan nañu jigéen ñi nee nañu jërëjëf sang bu tedd bi kon soxna Rama ñu wéy ci li nga xam ne mooy euh, prochain euh, invité bi euh, donc di leen di rejoindre bu tous rek di dalal sunu sang bu tedd bi euh, tey moom euh, jigéen yi ñoo aye donc euh, dinañu dugg ci waañ bi dinañu dugg ci bërëbu liggéeykaay bi dinañu dugg ci diine beeg yëpp donc pour parler du thème principal bi nga xam ne ni mooy vraiment le role de la femme dans la mission de l'imam Mahdi al et donc on va passer à madame Adja Ndeye Anta Sarr dañuy gis ñu ni diine dafa yëkkati jigéen maanaam diine dafa jox gëdd jigéen est-ce que mën ngeen ñu wax ci yan anam asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu ñoo ngi nuyu suñu mbokk yi teew ci bërëb bi yépp di nuyu suñu mbokk yi ñu bokkal plateau bi yépp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ñaan ñu ginnaaw ba nu sante yàlla subhanahu wa taala julli si Seydi Ahmed ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di yeesal suñu nuyoo ak suñu ziar ak suñu cofeel ci xatmiyatul maxtum bu yon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di Mawlana Cheikhu Tijaani Chérif radiyallahu taala anhu di ñaan mu nangul ñu suñu nekk taaribe suñu tarbiya ak suñu teggin ci barkeem di ziar jëm yu tedd yi mu am ci senegal yépp waaye di teg nuyoo bi ak ziar bi yépp ci loxo xalifaam fi nuril axzam di suñu xalifa di suñu uh, wasila yaa mawla yaa seydi Mouhamed El Cheikh imaamul mahdi al muntazar ki nga xamante ni suñu nekk taalibe cheikh bu nangu wóolu wuñu si yaakaar wuñu si kenn ku dul moom di ko ñaan mu nangul ñu ko soxna Rama bu ñu ñëwee si sa question suñu bëggee xam naka ak si yan anam la lislaam yëkkatee jigéen faaw ñu def un retour vers la civilisation pré-islamique maanaam la civilisation ancienne ñu dem Euh, des des des décennies avant l'islam pour mën a xam si ban ban place la jigéen amoon ci société yooyu avant l'islam la femme n'avait aucune valeur on a donc on ne aucune valeur à la femme donc aucune considération dañu ko doyo doon doyo doloon doon ko métital ah doon ko doon ko doon ko doon dañ ko nootoon doon ko métital mais nag bu nu jaawale diine ak aada parce que am na doxalin yu bari yoo xamante ni si aada la aju mais du si diine parce que euh, yàlla subhaanahu wa amul benn diine bu mu wàccee si kaw suuf santaane ñu doy dal si jigéen euh, sun sunu sunu suñu xoolee euh, kon yooyu société pré-islamique la femme ne jouissait ni de sa personne nii de ses valeurs Il ne jouissait pas librement de sa personne, ni de sa personne, ni de ses valeurs. Ses droits les plus élémentaires étaient bafoués. En Inde, par exemple, la femme était considérée comme un bien, trans, un bien transmissible euh, par héritage. wala pire encore, sa vie euh, s'arrêtait avec la vie de son mari maanaam dundam si dundu borom këram la yemoon dañ ko doon jël bu borom këram génnee àdduna ñu jël ko boole ko ak ak euh, borom këram teg ko ci bûcher bi lakk ko muy dund ñu teg ko ci bûcher bi lakk ko euh, bu ñu demee ba euh, ci civilisation chinoise ñu gis ni la femme était considérée comme un signe de mal malheur et de mauvaise fortune amul woon droit sax xool ji xool góor en face dañ doon laqatu bu ñuy génn ndax pour ñoom dajeeg ñoom xëy na malheur la woon euh, ñu dem ci grec yi ñoom la femme était considérée tout simplement comme un être impur dañu leen euh, considéré woon rek comme des objets de plaisir il disait d'ailleurs nous les prenons pour les pour la pour les pour le plaisir euh, pour la santé quotidienne de nos corps ou bien pour la procréation tout simplement amuñu woon droit dugg si temple yi am eh, il prétendait même que la femme n'avait pas droit au paradis ci seen wax boobu ñoom jigéen waru warul dugg warul jaamu yàlla amul woon benn droit dugg ci lieu de culte yi euh, et qu'elle et qu'elle et qu'elle n'entrait pas au au au paradis selon eux pour les arabes avant l'islam donc ñoom euh, avant l'islam am doom bu jigéen gàcce la woon ci ñoom jaraloon nañu ñu jël seen doom bu jigéen boobu gas ba mu xóot ñu jël ko sul ko ndax bañ bañ bañ ñu ne kii de jigéen doom bu jigéen la am lu ñu dund ak moom si kaw suuf dañ koy jël muy dund ñu gas sul ko l'islam moo ñëw corriger dérive dérive yooyu ak dérapage yooyu yëpp ay aya wàcc di di di di layal jigéen delloowaat ko place ba mu amoon ba ko yàlla subhanahu wa taala wàccee woon ci kaw suuf moom yonent yàlla Adama Euh, alxuraan indi saar jagaleel ko jigéen xamal ñu ne jigéen ak góor même droit ak même devoir la ñu am si kanamu suñu borom lii yàlla sant jigéen moom la sant góor ndax yàlla boo nee muslimi na daneen danaan muslimaati mënoon na yem fi rek ni mumini na wala mu yem rek ne euh, euh, muslimi na waaye yenn saa yi day spécifier ne jigéen jullit bu ko jullit bu jigéen insisté si kon li mu li li yàlla subhanahu wa taala sant jigéen moom la sant góor. Eh, macha <laughs> si ñëw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donc la ñu la ñu delloowaat jigéen valeur am ak euh, considération bi ñu ko war a amoon si si si droit yi mu yi mu yi mu disposer librement de sa personne et de sa de ses biens am droit yëpp droit à l'enseignement l'enseignement droit à la propriété ci jigéen ci la am droit am sax ndono. kon soxna Rama pour na pas être trop longue loolu laa mën a écourter wax la ko ci jigéen avant l'islam et l'islam euh, avec la femme. merci beaucoup <laughs> merci beaucoup euh, madame Adja Ndeye Anta yi nga xam ne yëpp vraiment indil ngeen ñu ko déjà statut jigéen avant l'islam di ñëw ak l'islam bi nga xam ne ni itam ñëwee na mais dañuy rester toujours ci cadre boobu maanaam ci cadre jigéen euh, ban rôle la jigéen. mën a am si lii nga xam ne ni mooy tarixa tijaaniya bi walla euh, si li nga xam ne ni mooy mission bi ñu nekk di dund ñun ñëpp muy la mission euh, de l'imam Mahdi al Muntazar ah macha allah macha allah soxna Rama pour na pa pour na pas tarder ban place la jigéen am si tarixa tijaan euh, ak mission imam Mahdi al Muntazar jërëjëf ñu delluwaat di sant yàlla waaye di ko ñaan moo nangul ñu suñu sang bu tedd bi suñu nekk compagnon si mission bi Euh, tabarakee lañ na ko mission bi nga xam ni képp kuy jullit ak kudul jullit bu la fekkee ci kaw suuf yàlla daf la sant subhaanahu wa taala nga topp imam Mahdi al Muntazar loolu la wax si alxuraan ji yàlla baaxee mu euh, dund si axiru zaman bokk si tarixa tijaan wala wala mission imam al Mahdi alayhi salaam ani ban rôle la war a amee euh, dama lay wax ni si mission bi wala si biir tarixa bi taxawaay jigéen benn la war a doon mooy ne mooy mooy parce que continuité la kon jigéen ji ñëw ba mu ba mu jigéen jigéen ji gannaaw ba mu amee jikko doxalin ak teggi di julli àqan wala am dafa war a nekk taalibe cheikh di sàmmonteeg charte ak teggin yi war yi war dafa war a nekk royuwaay nekk référence si fànn yépp am une bonne éducation religieuse mais am bu am jeexital ci jëmmam ak ci ay doxalinam mu xam bu wér kan mooy kilifaam xam ni muy àndee ak moom ak lan mooy mission imaam di li mu laaj ci matuwaay teggin ak taxawaay kon dafa war a sàmmoonteeg jëmmam ba ku mu ba ku mu jaboote képp ku mu jaboote eh, kuy xool ci moom walla ku mu jaboote mu mën ko sàmmal jikkoom yar leen si yoonu siraatal mustaqim waaye miinal leen yoonu tarixa bi mission bi dara fa war a nekk dundam mu nekk une missionnaire à part entière lépp lu mu mën ak lu mu am si expérience mu mettre ko au service de la mission te bañ a xeeb dara si kër gi si daara ji si lépp lu aju si liggéeyu xadara bi xadara bi muy presse bi muy technologie bi muy publication yi lépp mu restauration bi muy formation des jeunes des enfants si fànn yépp lépp pour l'organisation la cause et la bonne marche de la mission dundal tarixa bi Mawlana Cheikh Tidiane Chérif radiallahu taala anhu son rôle le plus fondamental mooy yar njaboot gi ci tegginu xarit xadara bi fexe ba ndaw ñi gémmisi lépp lu aju ci wàllu tarixa bi yar leen ci leen seen bakkan ba suñu tolloo si tarbiyatu ruux bi nga xamante ni suñu sang bu tedd bi moo mu ñu ko yareel mu mën a yomb si ñoom ndax dañuy wax ni xale bu loxoom setee mu mën a bokk ak ay mag fànn boobu si wàll woowu si wàllu njaboot gi la waaye à l'échelle de la société la femme doit être une personne ressource mais aussi une personna une un personnage de relais di jàllale ak di jàngale jàngale sangu bu tedd bi nekk une éducatrice mais surtout une référence de par son comportement waaye dafa war a am pas-pas am détermination une bonne conduite am volonté ak engagement te du te du nekk ci intérêt boppam waaye ci intérêt mission bi kese lu dul di sàkku barke ak leer elle doit être une missionnaire avec porteur de flambeau avec Écriteau au service de la mission macha allah ma soxna Rama di la remercier. Euh, merci beaucoup donc euh, madame Diané Anta Sarr ñu lay sant di la gërëm ci leeralal yi nga xam ne ni yëpp euh, indi nga ko fi et donc on va donner la parole à monsieur Sey. merci beaucoup à nos chers invités pour euh, leurs réponses plus que pertinentes aux questions donc Nous allons passer à notre prochaine invitée, euh, Sorna Salimata Sabali, de la Dairatul Iman euh, Casamance. Euh, Sorna Salimata, euh, pouvez-vous nous parler de la valeur de la femme musulmane et de sa place dans la société à euh, l'époque de la fin des temps que nous vivons, s'il vous plaît Bismillahir Rahmanir Avec votre permission, euh, musidɓe tedduɓe min calmini on min juurima min ñaaguima on duwaw mi cagganɗe min yetti allah e muɗum mouhammad salamu o e ziyara o min pawi ɗum e juuɗe mo ganduɗa min ngala wona kanko yakar amen hannde e wasila amen mawla ya cheikh seydi age el cheikh ibnu ahmad ibnu muhammad ak tijaani shérif radiallahu taala anhu euh, dafa mel ni dangeen ñu laajte euh, valeuru jigéen ci biir société bi kon wolof bi bu demeewul noonu rek ngeen jéggal ñu voilà donc euh, valeuru jigéen dafa jigéen dafa am ay valeur yu bari mais man si sama jàngat bopp dama foog ni am na benn valeur bu fondamental boobu su ko jigéen amee rek yeneen yi dañuy ñëw mottali mooy l'éducation l'éducation est une valeur fondamentale chez l'être humain rawatina ci jigéen euh, loolu pour ñu mën ko indi xam ne dañuy dellu rek ci jàngale sàng bu tedd bi mooy li njëkk boo bëggee sa njaboot yaru da nga war a tànnal say doom papp walla nga tànnal leen yaay tànn bi euh, euh, lu tax mu am njëriñ parce que fi ngay tànn dangay xool koo xamante ni ku baax la ku tedd la donc su tànn bi ñëwee rek dafay fekk bu si njaboot juddoo mottali lay doon sur le plan spirituel sur le plan religieux et sur le plan dans la vie en communauté kon yar boobu bu ñëwee rek lépp dafay mottali lu si des parce que yar bi nit ki dafay war yaru vis-à-vis de sa propre personne mais aussi envers les autres ci waxin bi ci doxalin bi ak ci ni ngay jëflante ak say ak say ak say nawle donc su ko defee rek bu yar bi ñëwee rek kon respect bi day ñëw maanaam orma bi walla teggin bi vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres le respect de l'autre respect bu ñëwee rek dinañ gis xëy na euh, tolérance day dikk parce que nit bu yaroo mu man mu am orma am teggin kon kooku dina mën a nekk nit ku muñ te ñun ñëpp xam nañu muñ tamit valeur fondamentale la bu essentielle non seulement dans la vie en famille dans la vie en communauté mais vis-à-vis de some prochain parce que da ngay mën a tolérer tolérer sa bopp balaa nga mën a tolérer keneen dans sa façon de voir dans sa façon d'être et dans sa façon d'agir da ngay accepter sa moroom avec avec tout ce que comporte comme comme bon bonne valeur ou comme défaut comme opinion da nga koy accepté su ko defee bu muñ bi dikkee rek nit ki après dëggu bi ñëw mooy la personne doit être juste nit ki mën a dëggu donc soo su loolu ñëwee rek kon dinañ xam ne ne euh, éducation bi bu dikkee si nit ki rek yeneen valeurs yëpp dañuy ñëw mottali euh, yar boobu donc euh, ci gàttal loolu la ñu bëggoon indi salaamaaleykum macha allah donc yéen delloo ngeen lépp rek ci wàllu éducation à la base ndax loolu mooy defar lépp li comportement ñu bëggoon rek xam ni léegi euh, da ngay yar sa doom ci kër gi waaye sa doom dafay génn di dem école génn dem di tase ak ay moromam ci mbedd mi di tase ak yeneen nit ci yeneen milieu naka nga war a mën a def su fekkee doom bu jigéen la wala bu fekkee jigéen la ba mu war a mën a am comportement bu baax ba nga xamante ni li nga ko yare noonu lay comporte woo waaye du dem di jël yeneen comportement di ko indi ci biir kër gi naka ngay def pour consolider loolu ci moom ba du am influence extérieure. ah macha allah euh, pour consolider yar boobu man euh, je me yar bi comme que ci base bi la si la base et solide lu si des day ñëwal boppam si l'éducation de base elle a été bien établie. nit ki sa doom nga waxtaan ak moom nga nga nga teg ko ci yoon kooku su génnee dina fàttali ko lu ko yaayam waxoon dina fàttali ko lu ko papam waxoon dutee nag à chaque fois nga continuer di communiquer ak moom parce que la communication elle est fondamentale dans l'éducation ou la continuité de l'éducation de l'enfant rawatina xale bu jigéen xale bu jigéen dafa war a waxtaan ak waaye juram yi war ñu dëkk di waxtaan ak sunu doom yi parce que effectivement comme ni ngeen ko waxee ci biti moom lu ne ma nga fa donc su ko defee rek à chaque fois da ngay xool ndax li nga defoon ci moom mu ngi ci moom ba tey loolu noo ko mën a vérifier di continuer di communiquer ak xale bu jigéen bi kon man euh, communication bi laa laa yaakaar ne ni dina mën a en tout cas accompagner xale bi ba mu nekk majeur mu xam en tout cas lii su ma ko defee baax na lii su ma ko deful baax na mais tout dépend de l'éducation de la base voilà merci Merci beaucoup, soxna Salimatou. Donc, euh, éducation à la base et une communication ininterrompue et l'éducation par l'exemple. jërëjëf. et donc euh, gis nañ fi ay jàngat yu bëri yoo xam ne ni déjà génn na euh, si wàllum jigéen si fànn yu bëri et donc euh, dañuy ñëw rek si Soxna Sawjatu madame Mbodj et Soxna Sawjatu ban comportement wala doxalin. Euh, la jigéen bu baax war a am ci sëyam euh, pour mëna a itamit bañ a réeroog li nga xam ne ni ah mooy diineem nan la war a doxalee ci biir sëyam nan la war a comporté ci biir sëyam ba nga xam ne ni dina def li mu wax mais sans réeroog li nga xam ne ni mooy diineem yaa himmata cheikhi uxduri lana bi haza almaxdari wal taafif lana bi nazaratin taati lana bi zafari alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima uxliqa walxaatimi lima sabaxa naasir alxaq bilxaqi walhadi ila siratika almustaxibi wa ala alihi xaqa xadrihi wa mixdaarihi alazim wa radiallahu an qutbi almaktum mawlana abul abbas cheikh ahmad ibnu muhammad atijani sharif radiallahu taala anhu wa nuxayi wa nazuuru cheikhana uh, wa wasilatana wa mumiddana wa rajaana maulana seydi muhammad el cheikh imam al mahdi al muntazar alayhi salaam uh, asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu uh, mbokki xadaratu daayiratul iman ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi suñu sang bu tedd bi eh, Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh ñu di ko ñaan mu nangu ñu suñu taalibe nangul ñu suñu tarbiya nangul ñu suñu teggin ci keppaaram wa ma zalika alayhi bi aziz eh, fa tabaarakallah Seyda Rama nga laajte question bu am solo mooy jigéenu jullit nan la war a mel si biir sëyam ba du réeroo ak diineem eh, borom laxdar yi dafay ñu jàngal ne mukallaf warul jëf benn jëf feek xamul àtte yàlla si jëf boobu euh, sëy jaamu yàlla la waaw jigéen bu ne dafa war a xam ne lii muy dugg nii jaamu yàlla la yàlla subhaanahu wa taala moom moo wax ci suuratu Ruum aaya 21 ne mu wo ne wo bada auzu billahi min alsheytaani rajim wa min ayaatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwajan wa jaala baynakum mawaddatan wa rahmatan li taskunu ilayha jigéen sa kiina la war a doon sakina mooy lan mooy dalwaay pour borom këram jigéen bu nekk war na fexe ba borom këram su wàccee liggéey mu yàkkamtee daw àgg këram loola nag jàmm da koy da koy waral loola ci comportement ndaw si daf koy daf koy waral digganteem ak borom këram lépp lu mu ciy def rekk ci yëngatu ak ci dal dafa war a xam ne loolu jaamu yàlla la moo xam togg la moo xam euh, tâche ménagère la moo xam ni ngay toppatawee sa borom kër lépp loo def si biir foofu rek dañ dafay bindal ay tuyaaba ay yiw kon loolu nekk loo xam ne danga koy def pare sonn wala nga ne noonu du ma seen toggukat wala déedéet loolu ngay def si biir néegu sëy jaamu yàlla la waaw loolu sa côté sa digganteeg sa borom kër la mais jigéen aussi yaay la waaw ndaxte woykat bi daf ne al ummu madrasatun isa ahdataha ahdata shaaban tayyibal araq mu ne yaay école la soo ko préparé rek da ngay daal di am peuple boo xam ne peuple bu vertu lay doon kon jigéen bu nekk euh, war na fexe en tant que yaay mu fexe def ay valeur ci njabootam mu def éducation bu njëkk balaa moo dem ca lekkool ba si yaay ji lay si la si yaay ji lay njëkkee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon benn xadis mu ne isa sallatil mar'a xamsaha wa saamat shahraha wa xafizat farjaha daxalat min ay abwaabil jannati shaat Seydi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam daf ne jigéen su ji su respecté julli juróomam maanaam boo jullee sa julli juróom nga woox sa weeru koor nga euh, sàmm sa pëy nga topp sa ndigalu borom kër buntu aljanna yi lañ lay ubbil nga dugg ci bu mu la neexee kon foofu da ngay xam ne li ngay def sa biir néegu sëy ndekku loo xam ne dafay nuyul moo xam nga yëg ko wala nga bañ ko yëg kon nañu rafetalaat yéene te xam ne sëy si jaamu yàlla la bokk comportement bi jigéen war a am ci biir néegu sëy weesu lu dul li ko diineem sant mu di ko def euh, jigéen nag bu ñu dafay topp borom këram foofu war nañ war nañ xool ban modelu borom kër lañ war a topp ndaxte tamit ni borom kër di tànnee soxna su baax soxna si tamit noonu la war a tànnee borom kër bu baax sallallahu alayhi sallam ba tey mi ngi nettali Seydi Ahmed ne isa jaakum man na tardawna diinahu wa xuluqahu fa zawijuhu mu ne nit ku leen dikkal di ut soxna xool leen ci moom diine ak ay jikkoom mu ne su leen doyee rek na ngeen ko sëyal kon loolu moom mooy base bi su ko defee su fekkante ne yow ak sa borom kër maanaam yenn a bokk diine seeni jikko tamit nekk di ko jikko yoo xam ne jikko diine islaam la yaakaar naa yàlla mën na def njaboot gu barkeel defal leen tawféex macha allah ah jërëjëf soxna Sawdiatou donc daal xam sa diine lu am solo la mais aussi l'éducation revient toujours euh, mais soxna Sawdiatou gis nañ ni que ni jigéen yàgg na œuvre si li nga xam ne ni mooy diine bi yàgg na œuvre si l'islam na yàgg na nekk missionnaire si islam est-ce que mën ngeen ñu jox ay exemple soxna yoo xam ne ni euh, vraiment œuvre nañ si diine bi wala ñu ngi œuvre si diine bi ah macha allah Seyda Rama ndeysaan sual bi wala laaj bi amatina solo euh, bu ñu xoolee lislaam dafa tàmbali rek jigéen jóg waaw doy na exemple nga xam ne kenn duutu ko présenté muy suñu yaay xadijatu euh, nga xam ne bi mu euh, commencé di accompagner Seydi Ahmad booba nubuwa gi sax feeñagul ci moom waaw booba nubuwa gi feeñagul ci moom Euh, yonent bi tamit sallallahu alayhi wa am kóllëre goo xam ne musul dañ di tudd valeur yi ndaw soosu donte ne génn na àdduna waaye fu mu munti toll rek mi ngi tudd baax nga nekkoon ci suñu yaay Xadija mi ngi tudd yiw gi nekkoon ci suñu yaay Xadija mi ngi tudd tabe gi nekkoon ci suñu yaay Xadija doy na exemple rek euh, biñ koy wax ne ko soxna Xadijatu moom sa màgget mi chaque jour nga di ko tudd ah, mu daan ne moom moo ma moom moo ma gëm bi ma ñëpp weddee parce que bi Seydi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam jugee xaaru xiraa ci shahada boobu la njëkk a gis Jibril moom moo ko dalal mooy suñu yaay Xadijatu kon foofu sakina bi ma doon wax day daal di ñëw euh, bi moom moo jël alalam def ko ci Seydi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam wante njabootu Seydi Ahmed yëpp yàlla ci moom la ko jaaree ba mu des ba mu des Ibrahim ndax euh, yonent bi saay salaam yàlla denkoon na ko juróom-ñaari bant mais juróom benn yëpp mook suñu yaay Xadijatu ñoom ñoo ko am euh, te loolu cër bu rëy la ci jigéen moo tax euh, ndeysaan bi mu faatoo yàlla subhaanahu wa taala terelee ko yaa ayyatuha nafsul mutmainna irjai ila rabbiki radiyatan mardiya loolu nag exemple si ñun jigéen ñëpp ñu daal di jéem a fexe rek ba am nafsul mutmainna boobu ba am radiyatan mardiya nga xam ne Eh, da ngay dellu ci sa borom ànd ak ngërmaande eh, ngërmaande borom bi subhanahu wa taala wante eh, bëri nañ ay exemple kooku suñu yaay Khadija la suñu yaay Aïcha nga xam ne moo gënoon a tuuti ci ay at si soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wante li mu mokkaloon ci ay xadis Abu Hurayra rek moo ko ëppoon li mu mokkal ci ay xadis waaw ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doonoon joxe exemple ne xuzu nisfa diinakum min hazihi al xumayra maanaam jël leen seen genn wàllu diine ci soxna su xonq si muy muy sayyidatuna Aïcha euh, munuñu dem tamit te ñu cité euh, nisaa u sayidatu nisaa il alamin mooy juróomi soxna yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tudd na leen nee na ñoom ñooy sang jigéen àdduna wax naa suñu yaay Xadija si la bokk wax naa suñu yaay Aïcha si la bokk Fatima si la bokk ak euh, saydatuna Mariam nga xam ne mooy yaayu saydina Isa alayhi salaam Euh, ci la bokk ak sayyidatuna Asiya nga xam ne moo nekkoon moo nekkoon soxna Firawna dem na ba Firawna di ko teg euh, xeetu mbugal xeetu lor mu ne rabbi euh, najjini min Firawna wa amalihi wa najjini baytan najjini min Firawna wa amalihi wa najjini min alxawmi zalimin ñaan yàlla ne ko nag ma may kër ci aljanna te nga muccal ma ci Firawna ak nit ñu réer yi Euh, moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na avant muy faatu moom won nañ ko këram ci biir aljanna mooy naa Asiya kon ñooñu ñëpp ay jigéenu reyukaay lañ yoo xamante ni nekkoon nañ ci biir diine lislaam wante du ñu fàtte sayyidatuna Sumayya Sumayya nga xam ne bi lislaam di door a tàmbali moom la deretam njëkk a tuuru ci lislaam moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam def ci moom ay témoignage ne euh, fa sabran ala yaasir fa inna maw'idakumul janna maanaam yéen waa kër yaasir parce que Sumayya borom këram yaasir la tuddoon doomam bi tamit moo ngi tuddoon Ammar ñu ne ko weddil mu ne dee na moom day dee ak pas-pasam ñu daal di koy ñu daal di koy rey deretam njëkk a tuuru ci lislaam kon kooku euh, royukaay la ndax moom ngëmbam rek la doon la doon sauver yonent bi nag ne leen muñ leen ndax yéen seen rande fu ëllëg aljanna la mooy Sumayya ak boroom këram euh, ñu jox leen rendez-vous aljanna loolu tamit lu am am am solo la euh, sayyidatuna Rabiatul Adawiya nga xam ne sang bu tedd bi jàngal nañu ne ci 18 ruux yi nga xam ne ñu ngi nekkoon ci duratul baydaa la bokkoon mais bi ñu wàccee ci xeer bi moom réclamé wul dara lu dul maanaam lu suñu borom waaw boo déggee boo déggee baytu yu mu doon wax danga naan kii kan moo nekkoon borom këram xabibun laysa yaadiluhu xabibun wama li siwaahu fil xalbi nasibun xabibun gaaba an samay wa basari walakin an fuaadi maa yaxibu mu ne sama soppe bii kenn munu ko remplacer ci soppe sama soppe bii nga xam ne fàddu na ci samay bët waaye fàdduwul ci sama xol yàlla la doon wax ak foofu cofeel bi mu amoon ci borom bi subhaanahu wa taala euh, bu ñuy tënk rek Seyda Rama euh, dañuy wax ne depuis bi lislaam tàmbalee ba suñu jamono tey ji jigéen mosul des ginnaaw ci biir mission euh, wàllu yu yàlla yi nga xam ne jon nañ fi jaar yëpp dinañ ànd ak ay jigéen ñu baax moo xam seeni soxna la ñuy doon moo xam ay jàmbaari fàq tëdd la ñuy doon ànd ak ñoom ci biir mission bi mission axiru zaman di mission imam al mahdi al muntazar di bi nga xam ne suñu sang bu tedd bi Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh moom moo ko moom moo ko yore jigéen ñi tamit de suñu si ginnaaw ndax boo seetloo ah, kii sang bu tedd bi njëkk a jox wirda Seyda Binta Seen la waa loolu loolu dañ koy dañ koy delloo njukkal si loolu bu ñu xoolee tamit ba tey ba muy dem Arafa foo seenee góor ña gis nga jigéen ña ba mu demee ca tournée national ba tamit boo seenee góor ña gis nga jigéen ña kon jigéen mosul des ginnaaw mënoon naa fi tudd yeneen exemple yeneen exemple wante daal pour tënk rek mooy am nañu ay royukaay am nañu ay référence wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ah macha allah soxna Sawdiatou vraiment merci beaucoup pour développement bi yëpp lépp di wane rek ni daal ah, jigéen mësul des ginnaaw te toujours mu ngi œuvre si li nga xam ne ni yàgg na di œuvre si diine bi si lislaam si. donc ñu lay sant di la gërëm vraiment mais di remercier aussi sunu invité yëpp yi nga xam ne tey développé nañ ko fi yëpp si li nga xam ne ni toujours mu ngi dellu si wàllum jigéen. ñu jëlee si ay conseil ay jàngat yu bëri vraiment ñu leen di sant di leen gërëm donc pare nañu si question waa kon ñu jox kàddu gi suñu sang bu tedd bi ki ñu fi dajale euh, ki waral bile jataay ki jigéen ñi wax jërëjëf mu defal ñu surprise mu neex ci xolu góor ñi neex ci xolu jigéen ñi waaye neex ci xolu àdduna si sëpp sang bu tedd bi ñu ngi lay jox kàddu bi jërëjëf bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum moom daal dafa mel na dañu ñëwoon rek ni nañu barkeelu ci seen jotaay bu tedd bi waaye barkeelu aussi ci seen jotaay bu leer bi waaye barkeelu aussi ci seen volonté ndax xam naa da ngeen ko tuddee surprise sax waaye fekk na am na surprise yoo xam ni benn yoon lay mën nga koy mën a am ci sa dund bu la rëccee rek dootoo ko amati waaw su ko defee seen toogaay bii nag nun dañu jàpp ni loolu lañ ci mën a jëriñu moo tax ñu ñëw fi pour seetaan si waaw ndax ñëwuñu fi sax nag pour waxtaan si dañu ñëw rek pour seetaan si tabaarakallaahu sunu résumé li ngeen wax yépp li ñuy njëkk def rek mooy sant leen sant leen ndax hakim yi dañuy wax ni booy yar nit di ko digal ci yoonu yàlla ba mu dem ba mën a niiteel ñi ca gannaawam nee nañu sa jaan wàcc na te mu mel ni itam yéen ku leen dégg xam ni xam ngeen seen mission te mission bi ngeen yore it moo ëpp mission yu góor yi yore waaw ndax jigéen ekool la waaw jigéen ekool la ci biir kër njaboot gay juddu la cay baay ba mën du bare ndax baay ba day xëy génn kon yaay ji mooy yar su ko defee itam orientation it jigéen moo ko mën a defal boroom kër ndax moo mën a dalal xolam moo tax yàlla jël yonent bi dénk ko mission boo xam ni ma ko dénk mbindéef waaye teewul bi yonent bi ñëwee seetal ki yàlla jaarale ci moom orientation mooy sayyidatuna Xadija waaw bu ko yonent bi ne ko man de li ma gis dafa mel na ay jinne la mu toog ak moom ba yàgg ni ko anañu yonent bi ni ko ñi ngi na di ñëw mu muri boppam yonent bi ni ko dem nañu mu ni ko kon du jinne ndax su doon jinne dafay bëgg ka kawaru jigéen kon dañuy ñëw kon yi ngay gis malaayika lañu waaw ma ni loolu rek pour man doyoon na leçon waaw ku toll ni yonent bi jàngal ña ca espace intermédiaire yépp ñëw ni jinne la gis jigéen ni ko gisoo jinne malaayika nga gis loolu ku ci waaruwul dooto waaru waaw waaye fekk na nañ ko doon jokkalantee ñoom du loolu rek mooy sens ba sens ba mooy yàlla mooy wane ni jigéen école waaw yàlla mooy wane ni jigéen école waaw su ko defee nag xakim yi dañuy wax ni école moom soo bëggee ña cay jàng jag da fexe ba maître ba cay jàngale walla professeur ba ngay jël moom it mu jag ba noppi waaw te mooy wut boroom kër gu jag waaw soxna soxna su tedd si wax na ko léegi tabaarakallaahu ca na mu jàngalee diine waaw ni góor amee fulla gu tollu dem di tànni soxna su baax noonu la soxna si waree amee fulla gu tolloog moom it dem tànn góor gu baax waaw parce que ñaar yooyu benn bu ci faussé rek sa kër yàqu na waaw boo tànnee soxna soo xam ni la yàlla xam doy na yow taluloo yar moom mooy yar daf leen di yar na na mu mel la leen di yar waaye boo baaxee jag ba noppi tànn boroom kër goo xam ni bu ñëwee la muy yónni xale mooy cigarette walla sàngara yàq nga sa kër te nag laa yukallifu llaahu nafsan ila wus'aha mag ñi dañ daan wax ni yàlla tegul benn euh, bakkan lu mu àttanul xàkkim yi ni moo tax lu mu teg bakkan rek xam na ni bakkan àttan na ko ba noppi waaw su ko defee nga gis ni kon njàngat bi am yépp ci la ngeen tudd ci domaine bu nekk nag waaw nun lañ koy résumer mooy ñu fexe ba xam ni am nañu ay soxna yu baax ci bërëb bi yoo xam ni mën nañu inculquer xale yu jigéen yi amagul boroom kër ñoom it ay jukko yu baax ñu jox leen nopp déglu leen waaw waaw lu am solo la waaw yàgg naa ko di wax ni gis nga nopp moom kenn mënul ni samay nopp joxuma ko kenn boo ko joxul ku baax jox nga ko koy yàq sa xel mënuloo ci dara yàlla binde noonu àdduna waaw yàlla moo binde noonu àdduna kenn mënul yor say nopp ni joxuma ko kenn waaw boo ko joxul ku lay xelal lu baax daa ko jox ku lay xelal lu ñaaw waaw su ko defee nag góor sax moom am na sens sens boo xam ni mën na ni moom góor la mi ngi fii di liggéey mi ngi fii am na soxna soxna si dem na ni dem na beneen dëkk ma nga fa am na beneen soxna waaye jigéen moom jigéen moom taaram mooy éducation de base te éducation de baas bu ko bàyyi mënee def ci soxna it danay jafe waaw la ca yaay ja mën bàyyi ba du ko ci mën ndax yaay ja moo nekk ak moom bare na ñuy bàkk toujours bés bu ne naan maay borom kër gi may borom kër gi fekk na kër gaa ngay tas te yëgunu ko waaw nga dégg nit maay boroom kër gi kër gi de na xam ni maa yor caabi ji nangam nangam kër gi de na ngeen xam ni lu ma fi dogalul ndeketi kër ga la fay xew xamu ci dara waaye yaay ja nag xam na lépp moom waaw da xëy ba yàgg rek benn góor ñëw ne ah ma doon bëgg sa doom nga ni waaw kii duma ko ko may ndax foog ma xam kañ la ñu ni yàgg nañu di nga ni kañ la ñu ni at bële nga walbatiku ni yaay ji mu ni waaw yëg naa ko waaye dama xam ni yow kilifa nga waaw tànk jotul rek duñ la ko wax waaw seetal boobu wax waaw yow kilifa nga tànk jotul duñ la ko wax te kilifa moom la yàlla di woo ëllëg ni ko kaay wax ma li doon xew sa kër yëpp waaye da ngay dégg dañuy dalal sa xel ni yow kilifa nga tànk euh, du farate rek duñ la ko wax waaw soo defee boo gàttee xel nag ni waaw kilifa laa kenn du ma wax ay détails <laughs> te kat bu kër ga doon tas kilifa gi la nii njëkk woo ni ko sa kër a ngi tas waaw pour wax la jigéen bu la nëbboo dara nga ci dul xam waaw waaw waaye bu tijjee xolam ci it lépp ngay yëg waaw waaye loolu yépp nag na nekk jigéen ju baax rek waaw yàgg naa di wax ni bari na góor yu bëggoon dugg aljana dem ba yàgg nga gis leen ñu détourné wu dem safara boo xoolee seen nopp am na soxna yu wax ak ñoom waaye itam am na jigéen yoo xam ni dañuy jub ba jëm aljana jekki saa nga gis ñu détourné ni safara la ñu jëm am na góor yu yàq seen xel waaw kon xel mi bu sellul kër ga du taxaw waaw te xel mu sell nag ñaara ko bokk waaw mbokk mi wax na ko léegi innal muslimina wal muslimaat wal muminina wal muminaat yàlla fu mu tuddee góor gu am pas-pas di jullit tudd na fa jigéen ju am pas-pas di jullit fu mu tuddee borom ngëm gu am pas-pas di góor tudd na fa borom ngëm gu am pas-pas di jigéen waaw parce que kenn ku nekk wàll bu yaatu am nga ko waaw su ko defee nag yàlla lay dimbali waaw yonent bi daan wax ni su la yàlla booleeg soxna su baax dafa mel ni yaa ngi aljana mel ni yaa ngi waaye nag mu ni bu la yàlla booleeg soxna su safaanu dafa mel ni yaa ngi safara noonu mu mel nag ci góor bu amee soxna noonu la mel ci jigéen su baaxee ba jag dem dugg ci góor goo xam ni musiba rek lu koy indil waaw moo tax ku nekk ki ngay dugg na ko xam waaw diine ji yonent bi wax ni bu amee diine bu amee diine faw nga xool ko ndax am diine ak mbubboo diine itam am na am diine ak mbubboo diine am na léeg-léeg nit ñëw bëgg si la fekk dafa mbubboo diine amul diine waaw su ko defee nag nga ni ah amoon na diine dem ba ci biir amatul diine ma ni mënul nekk diine benn yoon nga koy am benn yoon nga koy ñàkk waaw que boo xamul foo jëm du yàllaay jël ampoule di la niiteel naan la fii nga war jaar yàlla la mu waroon a wax wax na ko yonent bi alquran ñëw na rëdd nañu siraatal mustaqim ñépp xam nañ la xew waaw li ci des nag mooy jël say responsabilité waaw jël say responsabilité loolu la boroom kër gi war a def moom ci këram loolu la soxna siit war a def ci góor gi koy bëgg si waa xadara bii dama leen daan jàngal bu yàgg ba ni leen soo dee góor dem di wuti soxna bul xool rekk na soxna sa mel soo agsee xoolal ni kii moo war a jur samay njaboot moo leen war a yar kon jukkoom ngay xool waaye ma ni boo dee jigéen nit boroom kër gay ñëw di la bëgg si góor ga bul xool ni kii rek moo mu bëgg nee na dafa may denc xoolal ni kii moo nar a doon samay pàppaay njaboot moom it xoolum jukkoom ak nan la yar waaw su ko defee nag li ci des moom nga bàyyi ko ci loxo yàlla waaw ndax nag mënoo xam lépp waaw mënoo xam lépp lépp moom mënoo ko xam waaw surtout yàlla dafa bind jigéen ak benn facette mooy jigéen bu dëggoo ci dara jaral na ko bakkanam waaye mu bind góor nag ak facette yu bare waaw loolu yàlla moo ko def waaw ndax léeg-léeg nga gis góor goo xam ni defoo ko dara dangeen di xaritoo waaw waaye bu demee ba gis ni xëy na bëgg na ñaareel wala keneen jeex na loo toggati mu ni lii dafa saf xorom tere nañ ma waaw yéreem dara du ko dal mais day xool yére ba yàgg ni fii dafa si gisoo ma génnee sax wax nañ ma waaw pour créer ay waaw pour créer ay loolu ñoom ci seen facette la bokk waaw moo tax nag bu ñu amee ku leen di muñal it dina baax waaw bu ñu amee ku leen di muñal dana baax waaw ndax Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif dama ko laaj ni ko li li jamono di wax léegi xam nga jamono léegi da ngay dégg ñu ne ah jigéen ñii ma gis day du ñuy ñooy juri waliyu waaw léegi foo waxee rek danga koy dégg ma ni ko comme wax nañu ni la taxoon waliyu di judd bareetul léegi ci soxna yi ndax wëli ñu ci bari ci ñoom dañuy seet ci ki leen war a jur ba noppi waaw laata ñuy nangu juddu ca kër ga waaw ñu ci bari ci wëli yi dañuy xool ki leen war a jur ba noppi laata ñuy juddu ca kër ga waaw ma ne ko kon nag lu ciy pexe cheikh ni ma li ciy pexe daal mooy jigéen juy muñ moom jigéen juy muñ moom lu lu lu àdduna yàqu-yàqu lu jamono yàqu-yàqu yàlla mën na la indil doom joo xam ni dana faj sa mer te cheikh buy wax doom juy faj sa mer waxu ko rek ni nu ko yaakaaree fii ci aada muy la ngay dégg sama doom faj na sama mer ndax jëndal na ma oto faj na sama mer ndax wutal na ma basin loolu baax na waaye cheikh bu waxee buy faj mer mooy bu yàlla gërëm waaw ndax yàlla bu gërëmee njaboot rek rus waay juram waaw bu gërëmee njaboot rus waay juram te loolu sens bu rëy la boo xam ne du ku nekk moo ko am waaw kon nun li ñuy rafetlu lépp mooy jotaay bii nga xam ni tey tooge ngeen ko waaw wax parole yoo xam ni ñépp xam nañ ni mën ngeen yar ku nekk waaw mën ngeen yar ku nekk te ku ngeen yarit am na sens bu rëy ci jamono ji waaw su ko defee nag boo gisee ku baax nga jox ko sa nopp farata lay doon boo gisee ki lay yàq it nga nga daw kaak sa nopp farata la waaw waaw ndax loolu moo ci am su ko defee nag nun duñu def lu dul koon ñaanal leen ñaanal leen yàlla gën leen sàmm waaw ñaanal leen yàlla gën leen taxaw waaw ñaanal leen yàlla gën leen yiir waaw ndax nag nun ni ni amee nattu ci suñu mission ñun du nu bett dañ koy xaar ku yàlla dénk mission dénk la nattu waaye soxna yi nag lu tax seen nattu di metti mooy ñoom duñ ko xaar te li ci ëpp fuñ ko dul xaare rek fa la leen di dal waaw di gis jigéen ju baax am boroom kër koo xam ni kenn xamul lu mu doon waaw waaw di dóor du toppatoo yor cigarette yor alcool lu kenn xamul jigéen jë di muñ rek waaw jigéen ja di muñ rek di muñ rek di muñ rek te boo laajtee nag ñu ne la ah, muñal rek nga continuer di muñ xam nga boo laajtee kenn du la wax bul muñ da naan rek nga di muñ waaw kon xam nga kooku xaaru ko woon waaw kooku xaaru ko woon. kon nag su ko defee loolu dafay metti waaw léeg-léeg jigéen nekk ci kër nga defe ni lu nekk mu nga ca bànneex mu nga ca te fekk li mu denc ci xolam yow mi koy critiquer bu la joxoon nga denc ko benn fan nga génn kër gi waaw moom mu denc junni metti toggaaleeg moom waaw looloo tax nag yàlla di leen teral ñoom tam looloo tax yàlla di leen teral waaw teral gi leen yàlla di terale mooy ñoom ñoo am màqaama gu tolloo wëli lu mu rëy rëy yonent lu mu rëy rëy ñu mën ko denc seen biir ñoom neuf mois waaw loolu kenn mënu ko waaw loolu ñoom rek la ko yàlla defal waaw wëli yu ak leer yi wàcc ci moom guddi gu nekk bu ko yaayam ëmbee ba muy accoucher waaw jigéen na ko mën a dékku neuf mois moo ko mën a dékku neuf mois yonent ak leer yi wàcc ci moom bu ñu ko ëmbee ba ba ñuy accoucher jigéen moo ko mën a denc keneen mënu ko denc waaw su ko defee loolu yàlla jigéen rek la ko jagleel waaw kon moom teral na ko ba noppi moo tax valeur bi ñuy wax yépp jigéen moo ko incarné waaw valeur bi ñuy wax yépp bi islaam ñëwee ca la ñëpp xam ni ndekete jigéen moo ko incarné indi ngeen histoire yi jigéen yu jëkk yaat ca culture yu jëkk ya nañ leen doon defee def waaw waaye fekk na jamono yonent bi ba mu ñëwee ca la jigéen am valeur am waaw ca la jigéen am valeur am moo tax benn mbokk laaj ma ni ma ndax ñoom la ñoo tuddee journée de la femme kon lu islaam di baniir la wala ma ni islaam du ko bannir ndax islam teral na jigéen ba noppi leneen loo indeeti di ko rek dafa naan ay ca waaw teranga kenn du ko dellu islam du bannir mukk naan non bu leen fi wax journée de la femme nangam nangam ñi déggul jamono rek ñoo koy bannir waaw ñu ko indee ñoom islam day wax ay ca leen ci journée de la femme waaye nañ ko def nag suñu civilisation ak suñu culture te suñu civilisation ak suñu culture mooy culture alquran mooy civilisation alquran waaw su ko defee moo tax islaam du ko baniir mukk daf koy encouragé ni mu koy encouragé nag moo daf koy delloo si ci biir civilisation alquran ak culture alquran waaw mais du ko bannir soo defee nag ñi xamul rek ñooy toog noo lii nangam mbiru tubaab yi la nang waaw xam nga booy waaraate da ngay bàyyi ba dégg jamono ba noppi soogay waaraate waaw ndax bu dul loolu li ngay wax yépp erreur lay doon. ndax ngay dégg ku naan noo journée de la femme bi mbiru tubaab yi nangam nangam kenn waru ko fi def te moom portable ba mu yore kat di connecté tubaab yi ñoo ko defar ba noppi jox ko waaw pour wax la ni lu ñëw boo bëggee noppalu delloo ko ci islaam delloo ko ci njàngale yonent bi noppalu jeex na boo ko defee rek daal di noppalu su ko defee nag terang gi yàlla defal jigéen moom ca Sayyidatuna Maryam ba jigéen ñi nga xam ni xamuñu seen tur yàlla defal na leen teraanga gu dul jeex. ndax nag jigéen ñi dañu am ay marraines sayyidatuna Mariam sayyidatuna Khadija sayyidatuna Aïcha Fatima Soumayya na nga ko waxe waaye teewul am na ñeneen jigéen ñoo xam ne donn noonu ñooñu te kenn xamul seen tur waaw waaw ëllëg la xam ni ñii kat ñoo doon noonu njële waaw waaw ndax yàlla bu teralee jigéen ju baax fii wutal naka keneen ka mu teral fële seexale kaak moom waaw waaye ñën leen seexale ñu bari xamuñu leen. te ñooñu ñoo ñoo ñoo yor teranga àdduna yi waaw su ko defee nag yàlla moom kenn ku ca nekk mu xool sa wàll waaw ndax yàlla lu ko neex lay def yàlla lu ko neex lay def yàllaa sañ yàlla sañ jël yonent ak di yàlla fonkee yonent jox ko soxna soo xam ni musiba la yàlla ko sañ defal na ko yonent yàlla lóot waaw defal na ko yonent yàlla noox waaw waaye yàlla sañit jël góor goo xam ni moo yées ci àdduna jox ko soxna su gën ci àdduna def na ko Firawna ak soxnaam soxna Asiya waaw moo tax ñu ni bul xool soxna wëliyu rek ni ku baax la déedéet bul xool soxna yonent rek ni ku baax la déedéet waaye bul xool it soxna suy sëy góor gu baaxul rek nga ni soxna si baaxul déedéet ndax lu ci ne alxuraan àtte na ko waaw te yàlla joxe na ciy misaal waaw su ko defee nag lu ci nekk rek dafa am organisation bi ci yàlla def kon nun daal lañ leen di ñaanal mooy yàlla saxal leen fi waaw yàlla gën a dëggal seen volonté waaw yàlla gën a seede seen pas-pas waaw yàlla gën leen taxawu ci fànn yépp waaw ndax dama toog ba yàgg rek ma ni seen jotaay bi faw ma génn si waaw génn si rek ñëw barkeelu ci jotaay bi ndax boobu fekk na ñu bare dañu ndogg xam naa gaa ñi dañu ragal koor ndeke nga gis nu tëdd ci dal yi nii di xàndoor sonn la ma woo Khalifa Umar ni ko dama waxoon anniversaire bi 23h waaye ñi ak seen coono bu nu naafilee rek nañu def anniversaire bi ñuy soog ay reer loolu laa wax Khalifa Umar waaw. ni ko bu subaa bu ñu rek nañu commencé cérémonie bi suñu paree ñu soog ay reer ndax ñii bi ñu reeree na ñu bari fa mu ne mënuñu yëngul sax waaw naan ndox ba sonn waaw tëdd ah, ñii moom ragal nañu koor di waaw. waaye mu ni noonu fàttaliku kon saxaaba yi rek ñoom ñi nga xam ni dañu woor bëccëg. ci naaj bu tàng jant bu leen tiim naanuñu ndogguwuñu di dóorante jaa si mbur ngis islam tax waaw mu ni xam naa kon bu nu tegee seen portrait tuuti rek boo sonnee naan ndox ba jaaxaan xool ñooñu rek xëy na daa jógaat waaw góor-góor lu tuuti waaw ndax nag su ko defee sénégalais moom loolu la bu ndogoo rek lu si bari dootul mënati def dara ndeysaan am na ci ñu jàmbaare waaye fii moom fii moom lanu benn góor gu jóge woon Fuuta waxoon lu am solo la mu ni yéen yéen ndar ñaari weer ngeen war a lu tax mu ni sedd bii fii waaw wax na dëgg ndax foofoo nga tàng waaw mu ni sedd bii fii mën ngeen woor woorete te du leen wàññi dara waaye nun fële Fuuta waaw mu ni tàngoor gafa nekk ëpp na waaw kon fii moom dangay wor ba ngoon te fekk na sax doo soxla ndox loolu nag barke barke barke béréb bi la waaw barke Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif la waaw barkeem la te loolu rek moo ci am solo tabaarakallaahu waaw kon yàlla na yàlla taxawu leen waaw yal na yàlla mottali seen yéene yëpp ci zaahir ci baatin waaw waaye guddi yi ñu nekk muy guddi ngëneel it yal na yàlla baawaan ngëneel di seen kaw waaw yàlla may leen gudd fan yàlla may leen wér yàlla may leen ay doomu wëli yu am solo ci mission waaw ñi nga xam ni bëgg nañu borom kër gu baax yal na leen yàlla may borom kër gu baax gu fomp seen rangooñ waaw waaw ñi bëgg soxna su baax it yal na yàlla may leen soxna su baax su fomp seen rangooñ waaw te yal na yàlla may leen it lu ngeen ko yore waaw waaw ndax ku mënul yor tam dangay indi problème rek waaw da ngay indi problème rek <laughs> waaw ku mënul yor moom dangay indi problème rek waaw. ndax nag mën nga neexale kàddu yu rafet nag waaye soxna yu bari ngay neexle xaalis it baax na si waaw ñoom loolu dañu koy faral di bëgg moo dañuy wax yàlla na yàlla may leen it ngeen yor waaw waaw moom sax de kenn yorul yàlla rek moo yor waaye bu ñu waxee yor daal mooy sutura waaw waaw kenn yorul yàlla moo yor waaye bu ñu waxee yor mooy sutura waaw parce que kër moom sutura moo ko symbolise bis bu sutura ba dañee bu kër ga borom nekkoon milliardaire it amatul sens kon nag yàlla na yàlla taxawu leen waaw seen doom yit seen njaboot yu baax yi yàlla na ñu leen nuru yàlla na ñu leen nuru yàlla na leen nuru waaw waaw am volonté am yéene te tegu ci siraatal mustaqim waaw kon su ko defee rek ñu wax euh, cellule de presse bi ni leen kontaan nañu ci seen organisation bi Cheikh Adama Ndione Cheikh Mouhamed Sey ak soxna Rama bi nga xam ni moom ngeen toogal tabaarakallaahu waaye kontaan ci seen invité de marque yi waaw di leen ñaanal rek yàlla gën leen taxaw ci fànn yépp waaw ndax lii rek nun moom la am waaw nun mission bi la am béréb bi la am lii la ñu am waaw bu ñu fi nekkee ak yéen ñi ngi feeg yéen bu ñu fi nekkul ak yéen ñi ngi feeg malaayika yi ñi ngi feeg ñeneen ndax ñëpp bëgg jëriñ waaw ñëpp bëgg jëriñu bu ñuy xëyee ñi gont nañ waaw bu ñuy xëyee ñi gont nañ waaw benn nitu yàlla moo wax yeneen yàlla Ibrahim alayhi salaam ca xadara ba ni ko dama dégg ni yow bi ngay bi ngay tabax kaaba gi dangay xëy yow ak ismaila bu guddee malaayika yi gont ibrahim yëngal boppam ni ko dëgg la mu ni ko yow nga xëy ak ismaila ñoom ñu fanaani liggéey te li ngeen liggéey yépp mën nañ ni du imagul bu mag xanaa kon nan ngeen doon liggéey ibrahima ni ko tabaxuñu woon pas-pas lañ doon tabaxe waaw jëluñu woon i birig rek di teg ni ngeen koy gise yéen nun volonté lañ doon liggéey waaw maanaam brique bu nu teg volonté ko teg waaw te liñ ci jàng mooy tax brique boobu du nuroog beneen brique bu nekk beneen réew waaw te loolu mu wax Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani dëggal na ko waaw ca xëlwaam ba ba mu ne gis naa kaaba gi manqué benn brique waaw am na ñu ko waxoon waaye la ñu foogoon du brique ndax loolu mu wax imaam Xazali waxoon na ko Junayd di même waxoon na ko mais moom moo ko siiwal moom Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani mu ni manqué na benn brique ñu ni ko tenk ci teg mu ni garaadu xutbul maktuum la waaw mu ni xutbul maktuum dong moo am volonté wu remplacer brique boobu manqué ca Kaaba ga waaw sala gaa ñi daw ca Hakim ba di ko laaj luy xutbul maktuum mu ni mooy ngay xool asamaan di ko séen nii ba yàgg ñu mbaar léegi lan ngay gis mbaar mi wala asamaan nga ni ko mbaar mi mu ni la nga séenul mooy garaadam moom xutbul maktuum waaw te mooy Cheikh Tijani Chérif waaw lépp moom la waaw waaw démb moom la bërki démb moom la tay moom lépp moom kooku ku ko xam rekk noppalu waaw nettali naa ko ca 15 mètres fële ma ñëw fa benn xew waaw xam ni ñu bare may déglu ne ah oytul dana fi waxati rek ba ma jëlee kàddu ma xool tànt ba xool suuf sa xool jawwu ji ni leen lii ba fële lépp seexu ko moom waaw pour bu nu demee ñu wax ni wax naa ni cheikh moom quartier bi moom dëkk ba ma ni leen même àdduna bi moo ko waaw parce que sama yoon nekku ci man li ma gëm rek laay wax waaw waaw li ci des sama yoon nekku ci waaw waaw te te boo nee te boo nee du noonu yow yaay yow yaay dugg ci kàmb rek ndax noonu ndax man xaqi xamay at waaw waaw xaqiiqa may àtte waaw dama foog duma ma àtte xaqiiqa moo may àtte waaw su ko defee nag loolu suñu ngëneel la ñun waaw kon nu jàng fatiha jàng salaatul fatihi ñaanal leen yàlla barkeel leen yàlla taxawu leen ci fànn yépp ci zahir ak ci baatin bismillah bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi dini iyaka nahbudu wa iyaka nastain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 ba yàlla bindee soxna yi lataamu nuy rafetal dund yi di ci yiw ah, di ci leer ak ci mbaax soxna yi yéen yéen a taaral àdduna ah, ca door yàlla def ci yéen dencukaay te muy tabaxu mindeef ci meloom ah, boole kook ay malaayika ngir nu aar bile kéem kéemaan bu yàlla wóolu ci seeni bi waawaaw ñi doon royukaay démb tey la raw ah. ay soxna yu dund leer min xaqiqa ma jaare ca min monde xaybu ci barke cheikh seydi muhammed el cheikhu yaa jërëwul ah keroog ba bindee soxna yi la taamu nuy rafetal dundu yi di ci yiw di ci leer ak ci mbaax soxna yéen yéena taaral àdduna ca dooru yàlla def ci yéen dencukaay te muy tabaxu mindeef ci meloom boole ko ay malaika ngir nu aar bi lekkee maan bi yàlla wóolu ci seeni bi añi dooni royukaay démb tey la raw ay soxna yu dund leer min xaqiqa ba jaare sa min mondu xaybu ci barke Cheikh Seydi Mouhamed el Cheikhu yaa jërëwoon a ah, yaa mawla ya imaama lëma yow sang bi la yar nga fi ay soxna yu sell di jëmi la ah, ah, jërëjëf ya mawlaaya imaamal madi sunu yaay soxna Binta Faal soxna si de yaa jara way sunu yaay soxna Binta Faal soxna siide yaa jara kañ yaayu Seydi Muhammad el cheikh loolu doy na cër sunu yaay soxna Binta Faal soxna siide moo jara sunu yaay soxna Binta Faal soxna siide moo jara yaayu Seydi Muhammad el cheikh loolu doy na ci ah, bismillahi ma yéene way sayidatun xalimatun ah, bismillahi ma yéene way sayyidatun xalimatun yaayu sayyidi muhammad el cheikh loolu doy na cër si anti siddiqatun bi qawlil siddiqi ahmadun anti siddiqatun bi qawlil siddiqi ahmadun yaayu sayyidi Voici la chaîne qui décortique les réalités de la tariqa Tijani. Notre point de relais avec le bien guidé Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazir. Medina Cheikh, Medina Cheikh, Medina Cheikh TV chaîne de lumière. Medina Cheikh.